أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي بكل شر وسنا قد أبدو في البر والبهر وفي أسر والجار مع الهاجر وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام السلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بشارات كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيت مدادي مزمن ما صفى ودادي ñoo ngi yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Abdourahmane moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma di xalifaam di sa doom di sa wëllëre di lépp ci yow sëriñ bi nee na sedd na guyu yaakaaram itam dolliku na mu ngi dollee sant yàlla bu baax a baax a baax di sant Cheikhuna Ahmadul Xadim ci taxawaay bii nga xam ne moom la la fekkee te naka jàkkit ci lool rekk lala xam tànki tayam yi nag ànd ak ay jëwriñam ànd ak magi taalibe yi ngir ñëw fii fekk si leen fi muy lu mu yàkkamti woon di loo xam ne itam du ci doyal mukk ndax li leen boole yéen ñaar nee na lu yàgg la ndax nee na sëriñ Mouhamadul Moustapha moo boole woon sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Cheikh Amadou Mbacke waajuram ak sëriñ Abdul Xaadir sa waajur boole goo xam ne taxawe woon nañ ko taxawaay bu rafet sëriñ Cheikh Mbacke day sëriñ bi nee na dara mënta tax mu daan daggub tukkeem lu dul ngan gi ko sëñ Abdou Khadir di gan si soxna Fatma mi woo juróom wàcc na liggéey fekk sëñ Cheikh ci tukki daa àggalib tukkeem ba mu jeex mu door a wëññi ko waaye nee na waxtu wuñ ko masaan wax ne sëñ Abdou Khadir bis sàngam la lay gana si nee na lu mu ko fekk da koy bàyyi ñu doon kenn ñoo xam ne duñu woon ñaar am na lu baatini sax lu ci xew loo xam ne ci waajtaayu sëriñ Cheikh sëñ Abdou Khadir daf koo seet si wax ko loo xam ne bëriwut ñu mu koy wax ndax da koo seet si fekk sëñ Cheikh ni mu daan def rek saa yu xëyee suba teel dañuy tàngalaataaya bi mu ñëwee dafa fekk sëñ Cheikh di tàngalaataaya sëñ Abdou Khadir da ko wax ne yëg nañ waajtaay wi waaye fan yu mënees na koo yokk loolu bëriwut ñu ko seen Abdou Khadir di wax waaye sëriñ Cheikh Mbacke na mu mel rek dafa xelib kaas jox ko na ko waaye suñ ko yokkee day jeexaat rek loolu ko tontu loolu nag lu biire la loo xam ne bariwut ñaar ñum dox waaye dox na seen diggante ñoom ñaar nee na loolee nag lay sàmm ndax nee na way juróom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke dafa wax ci benn discours bu mu doon def na fa inna alal xalafi an yasuuna asaara salafi ko wóotu ku ne la la war mooy ñoŋal jeexiti ka nga wóotu nee na moom nag li ma wóotu mooy lépp loo xam ne Serigne Cheikh tegoon na ko fenn lépp loo xam ne Serigne Cheikh jàppoon na ko wala lépp loo xam ne Serigne Cheikh jëmbatoon na ko moom da ko war a suuxat ba mu màgg law ba ñépp mën caa jariñu nee na fii mu leen fekk nag du lu ko bett ci yéen. ndax xam ne ni nii rek ngeen ngeen mën a mel te it yoonu murit sëriñ bi nee na lii rek fu mu àgg fu ne lee ko fa àggale mooy dem ci àll ba dagg fa lu yaatu fas yéene fa liggéeyal sëriñ bi te nee na loolu ngeen ngeen nisar fii moom ngeen naal fii rawatina yitam ni ngeen ko tuddee mooy xesnul abraril hudaat an makaay idil fujaaril buxaat kon barabub kaaraange la boo xam ne mu ngi lay ñaan rek nga ñaan ci te wóor na ko ne li nga fi ñaan loo fi ñaan lu ne suñu borom dana ko def mooy réew mi suñu borom def fi jàmm suñu borom wàcce fi xéewal ndax xéewal yaa ngi ñëw waaye nag xéewal yi nag buy ñëw daa war a fekk nag jàmm am fi ndax mooy tax ñu mën koo jariñoo ndax sëriñ Moussa daa waxoon ne mosandi leen te xam ne lii aw ban la mbana gi laale la mbana gi laa guñ ko junni ñay la nee na junni ñay nag mbana guñ ko sóor bala ko sëriñ bee teg daa fekk jàmm am te ñu yéenante ko nee na loolu nag yaakaar na ko fii ndax xam na ne am na fi nee na xolam sedd na guyu nag teraanga yi moom wax dëgg yàlla dara desu ci lépp mat na ñi nga ko doon defloo itam def nañ ko ak yéene def nañ ko akub yar def nañ ko ak i teggin nee na daal xolam sedd na sedd goo xam ne li mu bëggoon a wax lépp mënu koo wax waaye nag yow xam nga lépp ndax seen diggante du du tey démb la woon kon nag mu ngi lay ñaanal yàlla itam euh, liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci sa loxo te ngay kenn ci sëriñ bi te loolu tàmbalee ci moom ci magam la tàmbalee woon wala ci ay waajuram ba agsi ci yéen li nga xam ne moom la ci sëriñ bi bëgg yàlla na la ci sun borom defal lu ko we sa njort te nee na loolu day am na ci yaakaar lool ndax doxe nga ko waxe nga ko te mate nga ko itam ndax ñoom waa kër sëriñ Tuubaa kat wóor na ko ne du ñu tànn ku ko matut tey duñ fi teg kuñ fi wërta teg kon kuñ fi teg ku ne mate nga ko te war nañ la ko war nañ war nañ la ko jox sëriñ Modou Moussa bi nga xamee ne sëriñ baa nga gànnaar sëriñ Modou Moussa sëriñ Fallou dañ ko fekk gànnaar waaye bi ñu demee ba war a ñibbisi si sëñ Modou dafa réer te réer gi moo ko teg boppam moo ko ca jublu ba ko sëñ bi wërloo ba indi ko laaj ko ne ko lu tax nga def lii mu ne ko dama laa ñëwoon dama la fii bëggut a bàyyi mu ne ko yaakaaroon naa ko waaye nee na loolu it moo ko dal ci yéen bu sañoon dafiy nekk ak yéen nee na kon nag gërëm na bu baax sant na cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amut fu mu yem. sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. <coughs> nee na mi ngi delloowaat ab nuyoo sëriñ Abdourahmane Mbacké nee na ak nag mboolem bokk yi nga àndal yépp tan say rakk ak ay taalibeem nee na bàyyiwu ci kenn nee na kàddu yi nag daa ànd mbégte lool ndax nee na kat fii de sori na ci yow nee na sori gi it daa ànd ak mu ñewent la ci lool nee na ñëw gi yëg na ne moom metti na ci moom rawatina nag yow mii nga xam ne yaa jóg déplacé wu te fa nga jóge nag sori na buñ jàpp ne Touba rek la jóge Ndakaaru nga jóge ba fii na nga yëg ne daal fépp foo xam ne xol bu sedd ma nga fay àgg rek àgg na fa nee na li muy ñaan nee na yow moom sa pësteef ci sëñ Tuubaa dara da ko cee umput nee na it àdduna sépp it xam nañ ko di la ko seereel xam nañ ne sa xol bépp sëriñ Tuubaa ci fees kon dañuy ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa ci ni nga xam ne noonu lañ la ko yéenee yàlla nga am ngërëmul sëñ Tuubaa nee na sa jataay bii yàlla na yàgg lool ba li nga bëgg a liggéeyal sa wayjur wa lépp na nga ko àggale ba la la Cheikh Abdoul Ahad sa maam ji daan wax naan defatuma fi dara ndax li ma bëggoon a def lépp def naa ko nee na yàlla nga àgg foofa nee na nag lii muy wax ñëpp la ko yéene du moom dong nee na mboolem ko bokk ci Serigne Touba koo bokkal sëñ Tuubaa yéene na la lii ndax sab xol ak sab taxawaay ak nag sag nangoo topp sey kilifa ndax sa ñaari kilifa yi jëkk a wuutu sëriñ Cheikh muy seriñ Mbàkke soxna loo ak Cheikh Abdoul Fatah sëriñ Mbàkke moom sa digg moom ñëpp dañ koo xam lu mu mas a def rek yaa cay jiitu ba làq ngërëmam kon sa jataay bii jataayum ngërëm la kon daal ñi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jaarale ci yow di nuyu sëriñ Omar mii di Sarak nee na léegi la koy tooñ rek di fàttaliku sëriñ Aliyu ndax diggam ak moom nee na waxtu wu ne am xelam day ne ci moom te loolu lépp diggante sëriñ Cheikh ak Cheikh Abdou Khadir rek ko waral di nuyu sëriñ Pape Fall mii di seb di ko jëf sant nag ci jëf ji mu jëfal sëñ Tuubaa bu yàggut muy jëf joo xam ne ñëpp ñoo ci war a roy ndax alal kat daa taq ci ab xol bu ko neexoon jëme alalam feneen waaye nag nee na nga rafet ci njort te xam ne sëñ Tuubaa moo dimbaleel boppam rek ndax waxoon na seex Issa Diène na ko alali dongo yi dee leen xool fi ngeen koy dugal. ndax nit kat fu xolam fu alalam jëm xol ba da koy topp kon mën ngaa rafet njort bu baax a baax sëriñ Abdou nee na ñu ngi sant bu baax ndax jataay bii lépp day sëñ Tuubaa te boo xasee tudd nag sëñ Tuubaa lépp tàbbi ci biir waaye Cheikh Mouhamadul Moustapha diggam ak Cheikh Abdoul Khadir. fan yi rek nee na la koy fàttali ci jàkkay sëriñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma ja ndax doomi sëñ Tuubaa yi nee na moom ñim ci miin ak ñi ma ci fekkewu lu bari ak ñi nga xam ne fekkewu ci ñoom lu bari ku ci gën a bëgg sëñ Mourou Moussa la xamut ku ci gën a bëgg ci ñoom ñooñu sëñ Mourou Moussa doo ko mën a xàmmee boo doon natt rek doomi sëñ Tuubaa yi seenu cofeel ci sëñ Mourou Moussa nee na mënu koo xam waaye nag dama jàpp ne sëñ Abdou Khadir la cee jiitu ndax bari na ku masa juddu këram ndax bari na ku masa juddu këram ko bu ko fàttewul rek. bu ko fàttewul rek. bu dee taalibe bu dee taalibe. dana ab taaw daal Mouhamadou Moustapha rek la wara a tudd. bëggoon ko lool bëggoon ko lool. daana wax ne. daana wax ne. sëñ Modou Moustapha ci njëlbeenam. sëñ Modou Moustapha ci ak njëlbeenam. da daan sëqal kawar gi. ngir murite gi. ngir murite ga. muy njañ lii ñuy dégg rek kuñ ko tudde ñaan ko njañ. waaye nee na sëñ Tuubaa ko tere. na ko yow kat na nga xam ne. na ko yow kat na nga xam ne. sunna lañ la tàmm sunna lan la tànnal sëñ Abdou Khadir nag da daan wax naan loolee mu waxoon sëñ Mourou Moustapha man mii di Abdou Khadir tàbbiwaale naa ci biir bëggoon ko nag lool ba bëgg gi àgg ci ëpp waxtu wu ne muy waxtaane sëñ Mourou Moustapha sëñ Abdou Khadir it amoon ci moom yéene ni mu ko defee nag ci waa kër sëñ Touba ñëpp fee mu dëkk fa mu njëkk a dëkk ci gede Serigne Modou Moustapha moo ko defar ba mu àgg. ñaanoon na sax sëñ Mbacke Bousso. ne ko damaa bëgg nga jox ma sëñ Abdou Khadir mo yóbbu ko ci tund yi fenn. boole koog taalibe ya. kon daal sëñ Modou Moustapha wàccoo naa njabootu sëñ Touba gépp. Cheikh Abdou Lahad noonu la ko defal ci kàbbu. sëñ Saliou boo demee Xabaan. moom daal njabootu sëñ Touba gépp noonu la leen taxawoo. moo tax nag ñoom it ñu delloo ko bëgg ko lool. Cheikh Abdou Lahad moom. da daan wax ne sama doxin daal sëñ Mudu Musaa rek laa ciy roy sëriñ bu dégg naa ci aw làmmiñam tabax boobee mu doon tabaxal sëñ Abdou Khadir ci muj gi booba ci laa dégg muy nettali mu ne aw tabax yi ndey sëñ Mudu Musaa laa ciy roy ndax booba jamono ji melagut nii da daan wax tabax bi ni muy nekk ci digg kees gi ak ni ko kees yi wëre sama tabax bii sax bi ma toogee ci mbaar mi ci ginnaaw damay wax ne ku fi dugg rek sam xel dana dem kër sëñ Suwaybu loolu ab yar moo koy def ci doomu aadama te loolu ci làmmiñu sëñ Suwaybu laa ko namoo kon ñoom foofu lañ nekkoon ci sëñ Mourou Moustapha yàlla def na diggam ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke yaakaar naa nag Serigne Cheikh fi mu àggoon ak sëñ Abdou Khadir doomi sëñ Touba yëpp la fonkoon. waaye nag fi mu àgg ak sëñ Abdou Khadir jort naa àggu fa ak kenn ndax dégg naa ci sëñ Saliou mu sëñ Mourou Moussa mu nettali ci loo xam ne booba man ak sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir ak sëñ Fallou moom sëñ Sohaybou ñoo ko fekkee ak ñeneen ci fonk goo xam ne Serigne Cheikh fonkoon na ko sëñ Abdou Khadir ba àgg ci loo xam ne neexut a wax ci ab rajo xa Abdou eh, Abdourahmane nag li may junj xam na ko xam na lépp xam na diggante sëñ Cheikh ak sëñ Abdou Khadir mbooleem jàlla bi sëñ Abdou Khadir daan sol ndax booba jamono melagut nii booba sëñ Cheikh rek a fi daan tukki daanaka waaye ay wëlis jàlla bi la daan andi tabax bee sëñ Abdou Khadir tabax ca këram booba ci ab tabaxub deux pièces bu ndaw la dëkkoon. sëñ Cheikh a defar plan bi andi ka koy tabax kon seen diggante ñoom ñaar lu yàgg la sëñ Abdou Khadir saa yu saa dem Dakar diirub sëriñ Cheikh di fa ne musta dal fenn furut kër sëñ Cheikh ni ko sëñ Bas ñaan mi waxe léegi noonu rek la demee sëriñ Cheikh it fomb na ab tukkeem ngir sëriñ Abdou Khadir sëriñ Abdou Omar mi xam na néeg sëñ ba néeg sëñ Abdou Khadir ba. kon loolu daanaka mënoon nañoo yendu ci seen diggante ci luñ ci mën a wax ci loo xam ne moom àdduna bépp ko xam ci fonk gu ko sëñ Cheikh fonk ak doyloo gu ko sëñ Abdou Khadir doyloo moo dem nag ba andi digganteem ak sëñ Mbacke Soxna Lo maa ngi koy nettali keroog ba may ñëw fii bi may tolloo kër gi may fàttaliwaat loo xam ne Serigne Salihu moom sëñ euh, ambassadeur moo ma ko nettali woon. sëñ Mbàkke sax ba ma ko njëkkee gis tudd na ma loola. waaye euh, la ci sëñ Salihu nettali daa wax ne. sëñ Mbàkke da ko ne. sëñ Abdou Khadir kat dafee bëgg a ñëw. waaye damaa wax ne ma. yoon wa Cheikh Moustapha daan jaar. moom laa bëgg ñu xalaatal ma ko. sëñ Mbàkke di ko defaral ab tabax far sëñ Abdou Xaadir joge fi ci diggante bi sëñ Mbàkke nag wax sëñ Saal na ko lu ma musta dal moo ma dal ci demuk sëñ Abdou Xaadir gi mooy jooy ku fi jóge ne ko damaa dem sax ba wéet di yedd sama bopp ndax sëriñ Cheikh mii sama waajur kat jooyu ko waaye yéene ji ma amoon sëñ Abdou Xaadir damaa bëggoon bu tabax bi àggee ma woote na képp koo xam ne maay sa jëwriñ ci yoon wi ci réew mi ma fab lépp te ko ci loxol sëñ Abdou Khadir te loolu mosuma koo def na ko sama yéene jooju àggut nag moo ma naqari kon loolu moo andi suñ diggante digganteem ak sëñ Abdou Rahman sëñ Abdou Rahman mii nag nee na mu bëgg a seeral ak cantam ci moom nee na ni ma ko bëgg a sante sama làmmiñ lott na ci wax ko ndax kàddu yi rafetal rek du kàddu yi rafetal waaye nag day jëf joo xam ne daa dox suñu diggante ndax day mel ne cofeel gu sëñ Cheikh amoon ci sëñ Abdou Khadir sëñ Abdourahman mii am na ci Cheikh Mahamadoul Basir cofeel gu ko ëpp mbooleem ku jege sëñ Abdourahman ta xam ko xam nga loolu amut ci moom sago bëggut a dégg ci moom dara lu weesu jàmm lépp lu mu jàpp ne luy defar mbirum sëñ basiru la du ko ca xaar te du soxla it ma yëg ko dem naa ba ci genn kilifa gu mag ma jot ko téléphone waaye mosuma koo gis mu ne ma sëñ Abdourahmane day na nga ko jàpp baax te fonk ko ndax ñëw na ba fii ci man ndax day sama wëllëre na ko sëñ Basiiru moom sëñ Abdou Xaadir laa bëgg nga ñaanal ko te kooku bu ma ko tuddoon ñëpp xam ko te sëñ Abdourahmane mi waxuma loola yàllaa dem rek may def ba daje kooko ci téléphone mu nettali ma loolu te loolu kenn mënu koo fay rakkam yëpp itam mu leen di soññ di leen jox ndigal ñuy ànd ak moom ci liggéey bi kon daal deseelu ko dara lu dul ak ñaan ndax cant gi moom làmmiñ wi lott na ci wax ko xanaa di la ñaanal ci barkeb sëñ Touba yàlla na la sëñ Touba fayal boppam te nangul la sa jëf te mottali sa yéene di nuyu ñi fi teew ñëpp sa doom sëriñ Saliou maa ngi lay seereel ab taxawaayam ci man ndax yónnee na fi jëf ju baree baree ba te tey jii mi ngi nii toog xam naa loole da ko doon na ci yéen rek ak waajuram muy tab gi ak yéene ju yaatu ji sëñ Abdou Lahad Ka mii ni ma ko waxee woon ci biir rek sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Lahad ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yàgg na ci la ko boolee ak moom ndigal lam ko joxoon it. ndigal lam ko joxoon it yaakaar naa ne boobaag léegi ëpp na fukki at ak juróom lam ko waxoon mooy lépp loo xam ne Basiiru wax na la ko jërut nga di ma ci tàggu jërut nga di ma ko yëgal. lépp lum mu la wax rek na nga ko def loolu yàgg na fukki at ak juróom jàpp juróom benn mat na ko 2008 la woon ba naga ni booba ba naga ni nag mi ngi lay seeral ne mi ngi koy sàmm 2016 kendal googu ko sëñ Sidi di ganale ci këram at mu jot ba takkusaan jotee da koo woo woo ko jël loxom jël loxom bo téye daane ko daane boole googee laa yeesalaat. daane ko ne boole googee ma leen waxoon nag yeesalaat tey jii. ndax man kat sama amut luy nëbbutu lu ma nekk dama naan ca moo tax lépp lu ma la ko digale woon. moo lu la ko Basiir wax. jërut nga di ma ko yëgal. te nga di ma ca tàggu. noonu rek la koy defee Mbàkke. sëñ Sooy bu Siise mii moom sëñ Mor Mbay Siise moom itam yàlla def waaye juram ni mu demee ci yoon wi ñëpp xam nañ ko waaye ci jamonoy Serigne Saliou it muy wëllëreem mm, mu yàgg mu sàmm ko ba nëgë ni maa ngi fàttali ko ajjuma ji fi sëñ Saliou bàyyi ko ca alxames di ko jëkk ca alxames di ko jëkk muy ca démb sa rek ma jot ko téléphone nee na moom Serigne son bi mu moo ko mujj a jot li wooteb sëñ Saliou la sëriñ Saliou yónni woon na laat gay ci yow. ne ko sëriñ Saliou de yónni woon na laat gay ci yow. démb ci àllarba ji ji. mu di la woolu mu nga nekk Ndakaaru. daanaka bi may agsi amul bi demee. bi demee ëppul juróom-benn waxtu. kon këllëre googee ba nëgën. kon këllëre googee daal laay sàmm sama digg ak moom ba nëgën. nee na mi ngi sant ñëpp ndax jotaay bi yàgg na. di nuyu sëñ Moustapha Mbaye. sama nijaay. ahmadu muxniyan taala ansina wa kaana li bi kulli shahrin wa sanam ahmadu muxniyan taala ansina wa kaana li bi kulli shahrin wa sanam xaatabtoo fi lbari walbahri wa fi asiri waljari ma alhaajir wa fi fa qultu ya rabbal wara ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana salli salatan faayiqa kulla salatin bi raisin laayiqa maa سلام لا يجاري سلام على وسيلتي لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليم بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا